alxuraan bi nga xamante ni si donga yi nekk ci biir kër gi ñoo koy amal waaye ñu taxaw kenn koo xamante ni si kenn la ci Serigne Matar Diène muy Alaaji Seydou Si sëñ Seydou ñu ngi lay ñoo fay bu baax sëñ Abdou Salaam taalibi Cheikh Issa Diène taalibi Serigne Cheikh Issa Diène noo ngi lay nuyu di la ziar bu baax seex Abdou Salaam tey ñu fekk la kër Serigne Matar Diène sa diggante ak Serigne waaw sant yàlla bu baax sama diggante ak Serigne Matar mën naa cee wax lu bare bari ndax maa moom démb la tey soog a ñëw muy sama sëriñ di sama xarit ñu ànd ngir jëmmi cheikhul xaddim rek may xool ci moom sëriñ Touba di xool ci moom maamam sëriñ Cheikh Issa Dieng mu mate ko sëkk li mu doon wax naa ko ko léegi moom sëriñ Maxtaar ci biir saal bi nee naa ko da ngaa yàgg bëgg lu baax yàgg xeeñcu lu baax yàgg sakku baax ba tey loola nga bëggoon doon ko xenc doon ko loolu yëpp wuy si la ndax nit booy bëgg bëgg lu baax booy xenc xenc lu baax booy sàkku sàkku lu baax mbaax rek a jara sàkku te dëkk bii di dëkku Cheikhul Khadim Serigne di Khadim Rasoul lii rek a taxoon mu sanc dëkkam bii mooy jàng ak jàngale ak liggéey ak jaamu yàlla kon sëriñ Makhtar bu dee sëtu Serigne tabax fi daara ju toll nii ci biir dëkk bii muy jàngale. ñu baree bari génn ci daara ji at mu ne muy taxawal li nga xam ne mooy tar alquran ba ren ji mu tabax néegu yàlla bu toll nii ba tey jii ñu war a ubbiwaat néegu yàlla bi fas yéene fii julli aljuma mu boole kook tari alquran ci daara ci donga yi ndax balaa ngaa dem ci néegu yàlla da ngay xam yàlla ba noppi moo tax mu tabax néegu yàlla bii ba mu xamee lee nit ñi yàlla ci daara ji ci la jógee ci daara ji dem ci néegu yàlla kon tey bu ñuy julli àjjuma fii sëriñ Maxtaar boole koog tari alxuraanu dongo yi yàgg na ko def ci ndigalu kan nag Cheikh Mamadul Muntaxa góor yàlla dul mun Muntaxa borom mbégte mi sëriñ Maxtaar daal dañ koy ñaanal lii mu doon sàkk ci lu baax ba yàlla may ko ko tey yàlla na yàgg mu yàgg ko woote ñu yàgg koo wuy si ci barkeb sëriñ Touba man nag sama xarita ndax nee naa ko léegi ci kanamu sëñ tàkkoom sëñ Murtala maa ngi yow ak taa tàkkoom sëñ Murtala ba ñuy nekk Abidjan démb la tey soog a ñëw ba tey su ma demee ba tuddee ko sama doom jikkoom yu tedd la ak mbaaxam ak nangoo jaamu yàllaam aku sellam ak won gi muy won nit ñi sëñ Touba bañ a wone kenn ku dul sëriñ Touba bañ a liggéeyal kenn ku dul sëñ Touba moo tax sëñ Matar nit ñi bëgg ko nit ñi jàpp ko nit ñi jërëjëf sant Seydou bala ngaa def jàkka na nga def daara sëñ Matar nag loolu du ko dégg waaye sëñ Matar lii mu def ku xam maamam ya xam sëñ moor Jënd baayam xam ni sëñ Matar delloo na buum ca boy boy ba waa Njenne sëriñ Touba rek lañ bëgg sëñ Touba rek la ñuy déglu moo tax sëñ mataar Jënd jëf lii sëñ Matar nag nit ku yiw la sëñ Matar nit ku baax la waaye nit ku sell nit ku bëgg lislaam kuy dund dund lislaam rek mooy def lii kon jëf ji rafet na lool boole social yu am solo. yi muy def social nag mooy taawun mooy dimbale sëñ mataar mi ngi ci moo tax lii mu def ni tey jii tout tànk yi nekk fi rawatina waa kër Serigne Touba yu bari mokkale nañ fi alxuraan démb man sëñ Abibu Mbàkke bi sëñ Fallu fi la ma fekk bi mu ñëwee lu ànd dugg ci jumaa ji boo duggee ci jumaa ji def na fa majalis foo xamante ne fa la ñuy toog pour jàngal jàngale téere Serigne Touba yi boo duggee ci jumaa ji def na fi foo xam ne fi soxna yi toog ak góor ñi fu ñu nekk loolu di lu am solo lépp luy am ci jumaa rek def na ko ci jumaa ji waaye daara ji boo duggee démb man mi lay waxoon ma leeral ko ndax bi sëñ abi bu ñëwee nee naa ko biir daara ji suuf gi téeméeri nit yoo xam ne seen ñi ngi jàng alxuraan ñi ngi suuf téeméeri ñi ngi ci kaw xale yu bari mokkal lan ki mokkal mooy taatum sëñ Moustapha Massamba sëñ bi suwaa dani ko woon soo mokkalee ba tari dama fay ñëw yàlla dogal mu wàcc xale ba bokk na ci ñu tari ci mokkal tey jii yoon wi ñu bari seeni doom a ngi ci kon sëñ Matar jëf na jëf joo xam ju neex sëñ Tuubaa ndax suñ dëkk bii nag sëñ bi bi mu koy sant jàng ak jàngale la. ñoo ngi leen di saare bu baax sëñ Abdou Salam ak waa mbokki taalibe yi nga àndal yëpp ñoo ngi rafetlu bu baax teewaay bi tey sant sëñ Tuubaa bu baax ci ñëw gii ñu fi ñëw ndax suñu xamuñu ko ci lenn lu dul diine ak lislaam ak eh, liggéeyal suñ Tuubaa ba tax lii mu jëf nii daa wane ni daa gàcceel eh, suñ bi ci moom taxawaay ba mu taxawee woon ba eh, defar jàkkam jooj yi ba noon yee doxeek moom noonu ñu doxeek moom ca ca dëkk boobu yi mu ne woon ba tax na liggéey bii ak yeneen ni liggéey yu mel ni moom gàcceel la loolu yi ba tax na noo ngi ciy sant bu baax di di gërëm suñu maxtaar ci taxawaay bii mu taxawee boo ñëwee di nga fi fekk jàkka ji di nga fi fekk daaree alxuraan ji te loolu képp moo doon bëgg-bëggu sëriñ bi ak liggéeyalu sëriñ bi lool yi tamit moo moo moo taxoon mu dem fépp fu mu dem waaw ci gàttal rek nga xam temps bi xat na ñoo ngi ciy sant bu baax suñu Maxtaar di ko ci gërëm ci liggéey bi wasalaamaaleykum. waaw xanaa kontaan rek ndax sëñ Maxtaar moom day nit ku baax di xaritu dongo yi ba pare di murit sàddeex fu mu nekk liggéeyal sëñ Touba la fa nekkee kon bu lu mel nii jagleel ko lislaam bi ak taalibe yi faw ñu ñëw teew ba nu xam ne am na nu mu mel ci man ñun waaye ñun am na nu mel ci moom loolooy sunu taxawaay fii. waaw mu yàgg ak sëriñ sëriñ Matar Jenn loolu ndax bi nga xamee ne sëñ Matar Jenn soxna Mame Saye ngi njenni ñu dénk ko sëriñam bu baax ba sëriñ Naar di mbokkum sëriñ Matar sëñ Matar taxawu ko bëgg ko fonk doomam ji sëñ Yuus ba yëkkati bee màkk jox ko mu siyaare ji baytul haram te soxna Mame Saye bëgg na lu ko waay lebal ci lu baax bu gessoo fay la ko tax ma ànd ak moom bi ma ñëwee bi ñu ci biir fa la ñu fekk sëriñ Moustapha mu sëñ Mamour ku ne xam nga seen diggante yow xam nga ci dara moom nga xam ne bi fi sëñ Mamour nekk ba ni mu fi jógee bu sëñ Matar ñëwee fa lay ne te li nga xam ne moom la taxawal doonoon lu sëñ Mamour bëgg lool muy daaray alxuraan sëñ Salaam Gaye xanaa kontaante rek xam ne diine yokkooti na ndax diina saa yu benn nit xëyee yokk ko rek mel na ne yokk nga junni junni junni junni nit ñu dugg ci biir diine rawatina lii mu defal lislaam alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf Sëriñ Tuubaa Oustaz Diagne mën nga cee wax lu yaatoo yaatu ndax euh, yéen ñaar. Mhm. yàgg ba tey tey tey tey moom mhm. am salaam loolu moom dëgg na sëñ Massar sama diggante moom yàgg na lool lool lool ndax daanaka bi may tut tànk ba léegi moom ma yar jamono nag day tënku ba yu ci bëri léegi. xat-xat yi moo moo koy waral waaye wax dëgg yàlla li nekk ci man lu ci suñ mataara ko def daanaka moo ma jàngal alxuraan ba ma wàcc bi mu fi jógee di dem ci tukki bi man mii la bàyyi woon daara ji ma di ko yor ji jii ci kër gi suñ borom daa dogal ni daara ju yàgg la nit ki nag li nga bëgg rek la suñ borom di dimbalee muy alxuraan ak xasida moom la ko suñu borom fayee mu taxawal daara ju mag jii ci tali bees ci Touba Daaru Marnaan suñu borom defaat ci jeneen ndimbal muy juma jàkka ji doon ubbi tey muy jumaa ji wax dëgg yàlla xam ne képp ku fi ñëw ku nekke xam ne li mu taxawal lislaam rek ko ñor lislaam sama diggante ma Matar nag moom man doonul loo xam ne fii man mën naa ci waxati dara ndax daa yàgg ba pare lii tamit waaw lii lii moom sëñ Moussa waaw te damaa jàpp ni lii da mooy commencement bi mais du du fee bi loolu loolu loolu moom lii mooy commencement bi incha allah yaakaar naa ni lii moom ay daara lay ay daara lay doon ndax daara ji tamit day jur ay daara ndax mi ngi jëmbat nit ñoo xam ni xam naa ni kenn ko am nga yéene taxawal ay daara te jumaa ji tamit noonu lay demee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 gën noo gàtt ndoog tawfeexi sëriñ bi